li nga xam ni moom la comité bi jébbaloon préfet bu Dakar mu teg ko suma loxo comme ni ñu ko sant nag dinañ ko def point par point euh, tàmbalee ci li nga xam ni moom mooy volet sécuritaire euh, mu concerné gendarmerie police ak sapeur pompier alors comité bi kon euh, def ay requêtes yu am solo yu nga xam ni tam euh, ñi nga xam ne ñoo fa teewaloon force day indi nañ ci ay réponses euh, benn bi mooy effectivement nañu euh, mobiliser éléments yu doy moo xam police la moo xam gendarmerie la moo xam sapeur pompier pour assurer couverture sécuritaire événement bi ci biir couverture boobu dina am plan de circulation yi nga xam ni chef sécurité dinañ ko ànd ak comité bi. Euh, pour euh, que les pluies qui ont fait la circulation ne soient pas les 4 à 5 mars. Nous avons dit que nous avons fait la couverture sécuritaire. Que les pluies qui ont fait la circulation ne soient pas les couvertures. Nous avons fait la concession de la Khalifi ak yeneen chef religieux yi nga xam ni ñoo nekk Yoff Cambérène Ngor waaye it mausolée Yoff ak Cambérène nañ fa yóbbu sécurité bu doy euh, teg ci it euh, wàllu plage yi euh, Yoff Cambérène Ngor foofu it nañu ko sécuriser xeex également ubbi teg bar ak auberge yi nga xam ni xëy na àndul ak lii nga xam ni moom la ñuy célébrer muy appel bu Seydina Limaamu Laay euh, waaye euh, am na beneen requête bu nga xam ni dañ ko adressé directement police mooy que bu ñu ñëwee ba Cambérène euh, ndax dafa am particularité dafa am côté bu nga xam ni police bu Parcelles Assainies moom moo fa am compétence am beneen boor bu nga xam ne ni police bu golf defe moom moo fa am compétence ñu bëggoon nag moom ci seen wàllu gis-gis comme Cambérène benn la pour yombal mbir mi dañu bëgg lépp Cambérène commissariat bi nga xam ni moo yor euh, moo nekk parcelle unité 15 moom pour koy assurer la sécurité foofu alors toujours pour xeex accident yi donc ñu def jalonnement ci BDN 3 bi ak euh, les principaux axes ba nga xamee ni ñi dawal di ñëw dinañu respecter li nga xam ni moom la code de la route wax euh, opération désencombrement yi ci axes yi nga xam chaque année da daan am lu ci mel les deux voies allée principale croisement Cambérène Nations Unies yooyu yëpp désencombrement bi tàmbali balaa bés bi nga xam ni moom la ñuy xaar. waaye it les lieux saint yi ci mel ni jàmbalaay kambéere njoof ba nga xamee ni euh, macha allah ñu ngeen fay faral di di dem ak euh, ak doole nañu fa assuré sécurité bi ba mu doy li ci des nag mooy équipe bu sapeur pompier ñu ko daan defee chaque année nañ leen bindi ñu ànd ak euh, kilifa yi ànd ak wàllu santé jàppale askan bi dafa naan daal ci gàttal loolu mooy li nga ni euh, couverture sécuritaire ba nga xamee ni la euh, police gendarmerie ak sapeur pompier jël nañu parole wax nañu ci répondre positivement li nga comité bi laaj leen ci wàllu organisation